13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ndax xele bi muy sama goro di ndey aram bi mu ne dama dégg mbir dama dama jël ambulance ñu indi ko ngaay waa ngaay wax dëgg yàlla taxaw ci taxawaay bu rafet bi ñu xoolee xam ne lii du seen mbir ñu ne comme amuñu pédiatrie dañu koy yóbbu Tiwaawoon kero bi ñu ko indee Tiwaawoon eh, yàlla dogal na dégg nga maam man ànd naa ci bi ñu ñëwee ba dugal ko bi ma agsee maa ngi ko fekk mu tëdd ma ne ko waa yow fii ñu la indi est-ce que yow mu ne ma waaw fii de lañu ma eh, dugal ma ne ko kon alhamdulilah yàlla dogal naa tam mu mucc ci jàmm ñu jël doomam dugal ko ci pédiatrie bi biñ ko ci dugalee naka ni si eh, eh, démb eh, ci guddi ci guddi avant événement bi am laa woo magi jëkkëram ji woo jëkkëram mu ñëw woo seen yaay mi leen comme xele bi tey comme tey jii la war a lañ ko war a tudd seet leen aw tur bi nga xamante ni yàlla dogal na dégg nga maam daje nañu ñoom ñëpp seet aw tur a ah, ñu ne nañ ko tudde diw ñu ne kon alhamdulilah mën leen bu fajaree kon na ngeen dem Tiwaawoon teguñu ci 30 minutes teguñu ci 30 minutes waaw teguñu ci 30 minutes ke euh, sa jëkkëram ñu woo ko téléphone ndax dafa am mbokkam mu nekk fii ni ko yow kat ndax sa liir démb bi mu fi ñëwee yóbbu nga ko mu leen man de yóbbuwuma ko mu ne ko ah pédiatrie ba de dafa tàkk mu ne ko tàkk mu ne ah mu ñëw fëgg ma ne ma papa de. am na eh, eh, eh, message bu ñëw man ko lu mel na mu ne ma nee nañ pédiatrie bi dafa tàkk ma ne ko tàkk mu ne am ne ko maanaam ñoom day ab séparation lay am wala question mu ne daal xam naa ne liir yëpp ñoo bokk fu ñu ne ma ne ko ah bon mu ne am mun ko nañ jàpp ne ndogalug yàlla la waaye day bu fa demee fekk ko tànku borom de mais li ñu war a bàyyi moo di accompagnant bi nga xam ne dafa ànd ak malade bi ñëw guddi nga buub ko génne ko malaatu kese bi képp fa nekk koo xamante ne xëy na yàlla da ko dimbali maanaam ci wàllu xel ndax bi nga xamante ni dàq nañ leen moom dafa baawaat bi mu ñëwee dafa jël garab bi malaat bi wut beneen mbuus séddale ko ñaar jël benn mbuus teg ci boppam malaat bi jël mbuus teg ci boppam sage-femme bi dugg ni ko waa looy def fii mu ne ko man malaat la bi mu génnee automatiquement foofu ci la malaat bi daal ni man de sama biir bi day metti mu yee accompagnant bi wax ko ko accompagnant bi ne ko xaaral ma dem ci sage-femme bi bi mu ñëwee ci sage-femme bi bi mu ñëwee ci biir gisul xele bi moom nag ku yàlla dimbali la mu topp tànkam fekk ko ca duus ba dikk fekk doom ji waaj a wadd kon ca duus ba la ko doon am ñu doog ko yenu yóbbu ko si d'accouchement affaire bi nii la demee ah leneen li ci des nag moo di ñoom li ñuy def la ñu war a bàyyi malade accompagnant waru ko sori dañuy war di bàyyi accompagnant yi ñuy jënd mala malade yi su nee ma naan ñu may ko mu naan su nee ma lekk ñu may ko mu lekk su fekkenteen dañoo gisul lu ñu xamul ñu teel a alerte wu ki ci am xam-xam ñëw waaye dàq leen ba pare te yow doo fa toog hmm? ñaari euh, ah man loolu leeruma man li ma gis rek laa wax. loolu leeruma de. waaw léegi léegi nga xam ne day am loolu métti loolu ministre bi daa war a démissionné ah, man de dama ko fëlul woon may xam day démissionné wala du démissionné en tout cas ah. man li ma xam daal moo de. mais matuwaay ngeen bëgg tey jamono ji. Ah, ah yan matuwaay ñun daal fi mu ne nii. ku ci jël say matuwaay ak noo ko mën di jëlee yow yaa sa diggante yaay set sa diggante sa borom ak noo ci mën di jëlee waaye ñun wax dëgg yàlla mënuñu cee jël yenn kii engagement naa nañ jël lii nañ jël lee wasalaam. ñëwaat nga ci hôpital bi maa ngi nii sama doom laa àndal ak kii magam ñu ñëw sama doom la ñu bàyyi mu dugg te xam nga ne moom xele la yow léegi su ko su fekkente ñu ngi def enquete moom fi mu ne il est perturbé xamul ci li muy wax dara ñu bloqué ma ci bunt bi alors man naka laay moom bu ñu ko questionné muy wax waxi inconnu ah, fan fan mujj. ah dañuy war a bàyyi boog du moins ñu bàyyi magam ji mu ànd ak moom bu ñu dee questionné nga xamante ne moom dina xam li muy wax wala ñu bàyyi ma man ma ànd ak sama doom xam li may wax waaye bu ñu ko béy day mooy ne moom yóbbu comment faire. ah metti na boobu léegi ñoo ngi taxaw fii amuñu benn info mënuñoo fexe ba dégg nga am euh, am ci moom benn information.